nañ leen fay seen bourse suba à 8h bu ñu leen ko fayee dinañ yënga loolu lan nga ciy wax yan nga ciy wax. c'est <laughs> nga. étudiant moom boo sa xel day dem ci bourse étudiant day sa xel day dem ci bourse mais communiqué bi génn na dans la semaine lañ gis communiqué bi quoi ci semaine bii nii ci lañ gis peut-être ay ay lan mardi xaw ma mercredi la lañ gis communiqué bi donc que vendredi la fay euh, le huit huit heures dinañ commencé fay bourse mais te comme de génne nañ communiqué rek comme génne nañ communiqué rek ñun am nañ yaakaar ni suba kii dinañ ko fay bourse yi dañ fay ñëpp xam fii moom étudiant lenn kese la buñ fayu buñ fay buñ toogee une semaine gisuñ dara problème bourse bu nit ñi gisee ñoo étudiant dañ koy génne dugg nañu génn bi da leen di jaaxal seek bi dafa am ñoo xam dañ fay nekk seen ay waaju sori leen lool buñ toogee comme ne le huit lañ def ñu toog le huit le neuf ba le dix par exemple gisuñ dara te defoon nañ communiqué ne huit lañ waxoon booy ah, ma gis ni yéen fii 18h ngay ree te ku gis xam ne 18h ba heure bi day yàgg quoi. ba day yàgg day soxla ngeen toog ko na quoi xam nga rek ministre dara quoi contrainte na quoi donc génn taxawaal mu wax góor parce que yéen au moins yéen ngi yéen ñëpp dakkaloo fii nii pues loolu noonu tamit loolu amul ñun yàlla moo fi ne moo ñuy sàmm mm-hmm. xam nga mais aussi ku nekk en tant que situation defal li la war quoi mm-hmm. li nga xamante ni moom la autorité yi sant comme ça bu ko defee dans la cohésion mm-hmm. gaaw mu jeex daf may tëdd Macky Sall lu mu fi def mooy loolu fii bi kenn mënu fi ñun ay élèves lañ ay jeunes lañ dañuy jàng cours soir 23 heures ba 22 heures la ñuy wàcc léegi mënoo jàngi mënoo jàng corona bi corona man gëw ma ni am na fi koo fi gis corona la Macky Sall day g day g suñu maay ñun ñëpp loolu dafa doy lu président France di def loolu lu président France ñun amuñu président. da ngeen a jàpp ni kon Macky lu mu def le président France moo ko moo ko moo moo digal kay. coalition buñ buñ boole la ñoom ñun dunduñu loolu ñun ñun xamuñu li yaa ngi xoolal dëkk bi dëkk bi dëkk bi changé na ñun xamuñu lii. xamuñu Macky Sall daal na xoolaat boppam mu xoolaatee. mu lan ngay conseiller jeunes euh, jeunes yi comme yow. jeunes yi ñu génn mobiliser wu ñun ñëpp ñu xeex ko. taal ay puna def kon asalem taal dëkk bi sax la ñu war a taal dëkk bi yëpp la ñu war a taal. loolu kon dëkk bi na metti dëkk bi waaw mu metti mu metti benn yoon instant lii moo gën a metti loolu tëdd vingt une heure moo gën a. non tëdd kay dinañ ko def sax mais mënu ñaax mais dañu reer dañ si woon gis nga yaa ma gën a xam booba tey ñu ngi fiy taxaw ba ñuy léegi léegi la ñu wàcc mais tam pour ñu dina reer sax ak kii mooy le problème la yaa ngi gis bitig yëpp tëj nañ xamuñu fi ñuy jëndee reer instant nii moo tax dañuy jéem a xool waaw nu nu muy demee na pour ñu am nag mooy loolu nu mais duñ ñëw rek tëdd nii Macky Sall dafa war a yokkaat affaire yi affaire lu mu deedee sax war nañoo yóbbu ba minuit lu mu deedee sax ñu yóbbu ko ba minuit ndax da doonee nit day wàcc ñëw tëdd yaa ngi dégg ñëw tëdd si ba ba booru ay vingt et une nga dem tëdd ji loolu dafa jaaduwul yaa ngi ni ñun reer sax ay topp la ñuy añee waaye di ko reeree comme ni yaa ngi géegi mooy loolu xool nu mu demee nii ah. tey boo doon jëndi reer policier yi koj la nu may def xanaa laay def lu dul daw waaw da ngay daw mooy lool noo def leen lu daw tamit. ñu ngi tey jii fii nii université dugg wax ak étudiants yi ñu waxal seen xalaat wax ay xalaat yu macha allah xanaa yoo xam ne yu am respect la moom la ñu wax fii waaw tey ñu leen leen andiloon di leen wax beneen suba ak beneen kii incha allah ñu wax xoolaat